asalaamaaleykum mbokk yi sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futur Média 19h30 jot na xibaaru timis yi bokk na ci ponk yi gën a fës sakkanoon nañu loolu tey jile ci mbeddu ndakaaru yi di naqarlu yorin wu bon seen kërub liggéeyukaay ñoom ñi nekk ca poste xëyoon nañ tey jile naqarlu ko waaye weetuñu ca ñu amoon njàppandalu liggéeykat yu RTS Soleil ak APS mu di ay société publique yu ñu jàpp ni boo moyul ci nërmeelu lañ jëm soxna si nekkoon na secretaire général bu assemblée national ci diirub ñaar fukki at ak juróom-benn Marie Joséphine euh, Diallo dëddu na adduna démb mu di ab soxna bu bëri woon sutura waaye tamit bu doon jox liggéeyam ak ba ca war njiitu réew mi jóge ca moom jaare ca député yi ak ñëpp ñuy liggéey ci assemblée nationale daanaka euh, seede yi benn la. bokk na itam ci xibaar yi euh, ki ñu dénk jëwrin bi ñu dénk kaaraange biir réew mi mi wane njàppandalam direction générale des élections ak société civile ñi nga xamante ni fan yi yëpp ñu ngi leen di songu Antoine Félix jomm ne moom mi ngi rafet lu bu baax a baax euh, liggéeyu ñaari wàll yooyu le mu yëkkati kàddu yooyu ci euh, lancement programme bi ñuy dippee ñetti élection te collectif organisation société civile pour les élections amal ko ci jamono yi sénégalais yi nelawatul ba yandoor ndax ñàkkub kaaraange ci réew mi seen rubrique les bonnes feuilles de la rédaction tey ji la taxaw ci ab euh, téere bu ñuy duppee la gouvernance sécuritaire construire et garantir au Sénégal la sécurité pour tous mu di ab téere boo xam ne maître Mamadou Diop nekkoon maire bu Ndakaaru moo ko bind te mu dëddu ci atum 2018 Ibou Diouf dinañu xamle kas yenn ci ay saafara yi Diop la maire dañ ko daan waxee bind ci euh, livre boobule loolee lépp tënk la ne tuuti ñu yaatal ko. yi ginnaaw bañ leen ziaraatee ba noppi xibaar yi dañ koy euh, door euh, liggéeykat yu poste yi nga xam ne tey jile dañoo xëy ci mbeddu ndakaaru yi def ab euh, doxub ñaxtu ñu ànd ci ak yeneen agent yu ay ay société publique lu ci mel ni RTS Soleil ak agence de presse sénégalaise ñoom ñëpp li ñuy naqarlu mooy yorin wu bon ci seen kër yooyu le ñu jàpp ni sax seen i àq ak seen i yelleef dañ koy salfaañe saa su ne te boo moyul société yooyu le ci nërmeelu lañ jëm ñu àndoon CFC di ab centrale ak Pape Sangone Mbaye tey dañoo génn ci mbedd mi dox doxu ñaxtu liggéeykatu poste bokk na ci ñu leen tiital te jaaxal leen mooy yoren bu ñaaw bi directeur généraux yi di faral di yore entreprise bi. elle souffre jafe-jafe bi poste nekkee dara warlu ko lu gestion bu bon goo xam ne meeku nañ ko. yooyu nag rawatina ci tànneef ba ñuy amal ci directeur généraux ya nga xam ni président de la république moo leen di nommé. tàmbale ko ci poste la fa xew te jëkk dal ci liggéeykat yi nga xam ne duñu responsable la fa xew waaye ñoom ñoom ñooy ñoom ñooy fay ñi nga xam ne ñoo tax situation boobu am. kon loolu mënuñu ko dànk. ab entreprise publique bu nekk ci sukuraat si yeneen yu ci mel ni RTS Soleil wala sax APS foofu moom ak ak yelleefi liggéeykat yi la ñu dëkkee salfaañee. service public bi état bi yoral boppam muy eh, eh, service muy RTS di Soleil di APS. ñuy dëggaate di salfaañe suñu àq ak suñu yelleef te état mooy garant ak ak yelleefu liggéeykat ñu ne loolu mënuñu ko nangu li xew ci kër yooyu na ci wax service public passé nañ fu ñu koy joxe ay politiciens buy def lu ko neex. muy Excaf muy RTS muy DGID xeex bi nga xamante ni dañ koy xeex syndicalistes yi jëfandikoo bi ñuy jëfandikoo poste yi ak carrière yi. pour di napp nit ñi ngor gi nga xamante ne ñu ngi koy foqar ci ci loxoy liggéeykat yi am na ci kër goo xamante ne boo demee AG sax AG assemblée générale ñu foto la jox ko DG bi bu ngoonee mu sanctionné la affecté la. manifestant yi nag bii mooy seen jéego bu njëkk xeex bi dañ ko fas yéene wéyale fii ba situation bi di changé. ñu dem fële ca bët gànnaaru réew mi ak yeneen i ñaxtu fukk ak ñaari agents municipaux yu ñu euh, dàqoon euh, te nag ba ñu demee ba ca préfet ba di jooytu bu maatam ba léegi ñu amuñu la ñu bëgg jàkkaar lañu ak taskatu xabaar yi di naqarlu nee nañu ab defante ci wàllum politique moo leen euh, jóg moo leen yóbbee loolu lépp te amul kenn kuñ ci tuumal ku dul maire ba di Moussa Bokar Thiam ñu ne nag seen jafe-jafe yooyu le bu saafarawul ñoom ñëpp dinañ tase ca buntu maire ba sotti seen bopp Ali Bandel Niang ak El Hadj Ly ñaar yi ñu mën a jàppe nii dàq nañ leen mairie bu Ourossogui ñoom nag ñu jàppee dàq boobu bu injustifié tey itam jàpp ñu jàpp ni jaarul yoon ba ñuy tëkku nii bu leen bu ñu leen delluwaatul ci seen ay sañ-sañ maanaam seen ay droit dañuy ñëw ba ci buntu hôtel de ville bu gi xëppoo essence taal seen bopp ndax nag ñoom jàpp nañu mooy mennum pexe ngir ñu xamal askan wi ni Moussa Bocar am yore dëkk bu gi boobu ba tey. mun ko amu man amu Diallo laa tudd. assemblée municipale bi tey du def conférence de presse bugg a xamal président de la République maire de commune de Ourossogui di ñu licencié si licenciement boo xam ne ennemi politique kese la ñun di ñu xëy heure wàcc heure démb dem nañu saisir inspection travail deful réalisation def nañu dem nañu préfet saisir préfet diñ ko bëgg a xamal nag lii depuis 2014 dakk nit ñi rek dakk dakk borom kër yi ñun ay borom kër lañu ci lii la ñu yaakaar am nañu def 30 ans ci service bi am na ñu def quinze ans ci service bi am na ñu def vingt service bi ñu ngi fii mu xëy benn bis yàq seen liggéey dàq leen ñu ne nag ñun dañu laaj président de la République diñ koy woo diñ ko bëgg xamal ne ndax Ourossogui ci Sénégal la bokk ou bokkul ci Sénégal muy def ay mouvement politique am du ñu topp ginnaawam ñi koy topp ginnaawam nag ñooñu lay wutal place. fu mu nekk nii defar na ay contrat lu dul jeex mu ngi koy teg fii. da koy bëgg a yóbbu foofu pour ñooñu remplacer ñu. loolu nag diñ ko bëgg a xamal président de la République lii na désormais na jekk ci commune de Ourossogui ñun pare nañu bu dee réew mi amul loi simple maire day toog fii di def lu ko neex président du wax ministre du wax kenn du wax ñun bëgguñu dund ci réew boobu pare nañu dee waay duñu dund ci réew boobu de subu incha allah dix heures diñ leen di jox rendez-vous buntu mairie di ñu jëndi essence taal suñu bopp waay. ñaareelu mandat bi muy door maître Moussa Bocar Thiam nekk itam agent judiciaire de l' état jëm nañoo jëm ngir jokk ak moom ami xalaatam waaye antogut waaye mu war a kon taxaw ci dossier bi yi nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee fu ne ci biir dëkk bu Rosso gi. Euh, ku ci joxe xalaatam mooy euh, Sidiya Ndiaye euh, di secretaire général bu FGTS ab central la tamit moom nee na nag bu fekkente ni moom Moussa Bokar Thiam yen bi ñu ko yen dafa diis ci moom na ko delloo ndax boobu ba léegi mu ngi wane ab tëleem moom Sidiya Ndiaye mi ngi it wane ni jàppale na bu baax a baax liggéeykat yooyu le dañ koy déglu ak Kaali Bandel mën nga bëgg a véritablement poser problème boo xamante ne euh, bu ñu ko analyser dañu naan dafa mel ni ko normalul parce que yow nga inauguré sa premier mandat fekk fi ay agent nga licencié ci une dizaine ñu wax détawaat préfet wax ci gouverneur wax ci mu ne du dellu ginnaaw ministre wax ci mu ne du dellu ginnaaw ba ñëw dossier bi tribunal tribunal ko atte gagné ba léegi ñu ngi daw ci régularisation situation agent yi léegi nag mandat deuxième mandat li ma doon kayit am na maire yoo xamante ni il ñu rappeler leen la raison parce que dañ bëgg def mairie bi seen moomeel loolu moom war na dakk parce que nag moom xam na avocat la xam na incha allah nañ saisir autorité yi wax leen situation bu dee moom mënu doxal ñu def ko en délégation spéciale parce que véritablement moom jagati rek moo ko neex pourtant autorité ci dëkk bi parce que moom lañ dénk agence judiciaire li tax ah. te avocat la boole ci mën a comporté wu noonu bëgg a dindi liggéeykat yi dugal ñeneen secretaire euh, général bu assemblée nationale faatu na moom Marie Joséphine euh, Diallo euh, démb la dëddu àdduna miin ngeen kanamam bu baax a baax ca assemblée nationale boobule ca post ba mu nga ca atum 1996 ba léegi mu liggéey ànd ceeg sutura bu mat sëkk ak juróom-benn nit yi jiite assemblée nationale ci at yu mujj yi ñu ko mujjee jiite kon mu nekkoon itam ki jiite association bi ëmb secrétaire générau yu parlement francophonie ñi mu doon àndal di liggéey foofu assemblée nationale daanaka seede yëpp benn la ñu bëri sax dañoo jàppoon ni yaay la ci député ya fa nekk reportage Habib Faye ak Jafara Ba ci pencum ndawum réew mi tey gis fa député doon lu jafe li ko waral moo di génnuk àdduna Marie Joséphine Diallo mi dal ci seen kaw mu nekkoon secretaire général bu ñaareelu institution bu Sénégal waaye dawlu wi doonat koo xam ne ab yaay lañ ko jàppee woon au-delà mu nekkoon aussi ki nga xam ne moo doon jiite administration bi amoon na beneen taxawaay mu yaay muy mère de famille ndaxte dafa bootoo woon ñëpp muy personnelu administration assemblée nationale def leen samay say doom mais aussi député yi nga xam ne doon doon ñëw ñoom ñëpp ku ci nekk sama ma fille wala moo fils la doon tudde yaay lañ ko jàppee woon it moom itamit doom lañ ñu jàppee ndax lépp loo xam ne dafa jëm ci administration soo ñëwee wax dana ci taxaw taxawaay bu mot sëg ba mu sotti ci jàmm ak salaam te dara du ci aw lu dul ci yoon. nit la woon boo xamante ni dundam yëpp mën nañu wax daf ko jox assemblée nationale 96 ba léegi ku servir assemblée donc li jaar si sa loxo si député bari na. lu jaar ci sa loxo si président assemblée bari na. lu weesu ñeent fukki at mu koy liggéey ci pencum ndawum réew mi Marie Joséphine gunge na ay président yu bari ci seen liggéey. retraite bu yàgg. waaye président yi jaar yëpp dañuy bëgg mu toog ndax xam-xam bi mu am ak xam bi mu xam assemblée nationale ak nangu bi nga xam ne moom nangu na ko ci assemblée nationale. ñenn ñi sax duppe woon ko yaayu député yi moom treizième législature bi gunge na leen laata mu leen di tàggu. tout la nation sénégalaise a perdu ñu koy jaale ñëpp di wax ni fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge en tout cas tey sentiment bi nga xamante ni moom la ñëpp partagé mooy que ni nit la woon boo xamante ni dafa jox dundam. ak li ko waroon lépp à la nation sénégalaise rawatina le parlement sénégalais. boobu ak léegi def ñaar fukki at ak juróom-benn mu nekk secrétaire général bu assemblée nationale Marie Joséphine Diallo dundam gépp daf ko jox institution parlementaire bu Sénégal lu toll ci juróom ci ay président assemblée nationale gunge na leen dooree ko ci Cheikh Abdou Khadre Sissoko ba ci Moustapha Niass jaare ko ci Pape Diop Macky Sall ak ñeneen. moom Macky Sall di njiitu réew mi am na it euh, kàddu seede yu mu yi euh, ci kaw Marie Joséphine euh, Diallo moomule mu ne Sénégal ñàkk na ci ab tweet la ko def ab soxna su bëggoon liggéeyam ànd ceeg Pastef bu baax a baax ndax secrétaire général la woon ci atum 1996 ba léegi mu ne moom njiitu réew mi mi ngi sargal bu baax a baax ab ndawal état bu àndoon nag sutura bu baree bari muy jébbal njaalam njabootam ak mboolam liggéeykat yu assemblée nationale ñu wax leneen muy euh, jëwrin bi ñu dénk euh, wàllum euh, biir réew mi moom nag jamono ji mu ngi solal robu avocat direction générale des élections ginnaaw cong yu bëri ñu nemmeeku ci direction boobu boobule bàyyeekoo ci ay politiciens moom Antoine Félix Diome di rafet lu bu baax a baax yu DGE waaye itam société civile ak taxawaay bi ñu am ci élection yi ñu dëgmal ak yile weesu mu yëkkati kàddu yooyu ginnaaw benn ndaje bu ñu jagleel ay élection yu leer te dal fii ci réew mi Konté ak Youssou Barro de l'intérieur mu di Antoine Félix Diome ma ngay jàppale ñi nga xam ne ñoom ñu di société civile sénégalaise bi nga xam ne jamono ji moom mi ngi jàpp ne ñi ngi leen di attaqué te nag nan leen di def teguñu ko ci benn yoon may fàttali ni élection moom saa yu ñëwee faw léeg-léeg dënn yi jóg ba tax na du ñu mën lu dul ñaawlu kaddu yooyu nga xamante ni jub na ñu jëmale ko ci membre société civile bi ñu leen di nag apporter suñu soutien yépp ki nga xam ne nag moom la ñuy wax le premier flic du pays mi ngi doon assisté ci benn rencontre boo xam ne ñu ngi doon waxtaanee lu jëm ci processus électoral mu tourné waat jàppale waat ak fédéré waat kóllëreem ñi nga xam ne ñu ñuy direction des élections le contrôleur général de police Thiendella Fall bi mu tàmbalee di organiser ay élections nekkoon directeur des opérations électorales ak léegi mat na ci ren ñaar fukki at ak benn élection bu ñëw ñu rafetlu ko kooku yaakaar naa du dem ba daanaka xañ na nekk ci bunt bi di def loo xamante ni dañ ko ciy ŋàññee. teg ci it nag di fàttali ñi nga xam ne ñoom ñooy l'opposition bi condition yi nga xam ne moom moo tax ñuy wax dépôt de courier surtout nag bu fekkee ne courrier bu jëm ci wàllu élection la. administration yi dafa am organisation am nu muy doxee bu ñu la indilee courrier naka nga koy jëlee ak fan lañ ko war yóbbu. administration bu nekk dafa am bureau courrier waaye bu dee commission bii nga xamante ne moo logé tey ci direction des élections moo tax ñuy wax commission boobu bokkul ak direction général des élections boo demee ci article L 176 bu code électoral dafa wax ni commission boobu ministre de l'intérieur moom moo koy taxawal. li ci am ba am daal moom moo di ki nga xam ne moo di Antoine Félix Diome rafetluwul benn yoon génn yi nga xam ne mandataire Yewwi Askan Wi maa ngi koy génn di wax jëmale ko ci direction générale des élections ak lépp lu jëm ci élections yi sax. ci ndaje boobu la société civile lancé programme bi ñuy duppee ñetti élection mu di ab euh, programme euh, boo xam ne dañoo liñ ca namm rek mooy fexe ba euh, processus électoral bi ñu gën koo may gëdd gën koo dooleel professeur Babacar Gueye mi jiite collectif organisation société civile ngir ay élection ñëwaat ci solo sa ndaje boobule dañ koy déglu ci micro Bintu Sarr ak Youssou Baro programme observation pour ñetti élection yi élection euh, euh, territoriale élection législative ak élection euh, présidentielle bu 2024 observé nañu élection territoriale bi le 23 janvier ñu muy dëgmal élection législative yi le 31 juillet dañ ko bëgg a observé dañ ci bëgg a def sensibilisation def tam médiation chaque fois que mu am ay difficultés bëggoon nañ ci def médiation mu di ab programme ci diirub ñetti at mbirum euh, trafic passeport diplomatique te ñu ci doon tudd ay député ci assemblée nationale at bi daanu na tey jilee bu jile Boubacar yaay euh, kenn ci ñaari député yooyu dañ ko dañoo ne moom euh, daal dafa doon def ay njuuj njaaj ba tax na ñu teg ko daan ñaari atu kaso juróom juróomi weer yi képp la ciy tëdd ka ca des di El Hadj Mamadou Sall moom ñaari atu kaso juróom benn weer yi lay tëdd liñ koy toppee mooy mbirum abus de confiance ak escroquerie Diadji ci gën a tudd moom euh, daanaka daana moo gën a diis ndax ñaari at la ak euh, fukki weer yoo xam ne da koy tëdd euh, kii di avocat yi layal ñaari député yi moom dafa jàpp ni atte yi dafa diis loolu ñu euh, wax ci wàllum euh, corruption ngir fexe euh, ba ñi di taskatu xabaar yi gën a xam lan mooy stratégie nationale de lutte contre la corruption maanaam xeex ger lan lañ ci namm forum civil amal na benn atelier ngir waxtaan ci ak ñoom ci ndaje boobule sax mbootaay wala bokk structure yi ñu fi teg ngir ñu xeex ger ci réew mi wax nañu li seen liggéey lu ci mel ni OFNAC Birahim Seck coordonnateur forum civil lañ ci déglu ak bintu Sarr ak Youssou Baro dafa am bu ñu wax stratégie nationale lutte contre la corruption ñu ngi ko tëgg ci diiru 2020 mu war a jëm ba 2024 ñu ngi 2022 donc xaaj na forum civil nekkat gannaaw am na journalistes yu bëri yoo xam ne dañu doon interpellé pour xam lan mooy stratégie nationale lutte contre la corruption ñu ne tey dañ leen woo leen pour ñu xam pour ñu wax leen yan ponk moo nekk ci stratégie nationale lutte contre la corruption ponk yooyu yan action la ëmb yan activité également la ëmb ak naka lañ koy financer surtout le financement ñu ne kat bi ñu ko tàmbalee am na si yoo xam ne am na réalisation mais am na si yu bare bare bare yoo xam ne dafa manqué ba tax ne ñu ne kat bi ñu constaté loolu ne am na jéego yu bari yoo xam ne état bi war na ko def pour le financement de la stratégie nationale de corruption de la de la corruption ñu ne kat OFNAC ci boppam war na changer doxalin. 72 heures pôle emploi mu ñeel programme xëyu ndaw yi ñuy waxtaanee boobu ba léegi ak ab investissement bu toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukki milliards ci sunuy koppar ci di diirub ñetti at lay doon door nañ ko tey ca Pikine jëwriñ bi ñu denk formation professionnelle di daam Diop jàpp ni loolu dina tax ba ay junni junni ndaw ñu euh, boole leen ci euh, jox leen ab liggéey liggéey bu wóor bu ñu mën a suturloo ndax euh, li mu gis mooy wàllum formation maanaam tàggat leen nekk na lu am solo. ci ndaw yooyu la dañ koy déglu moom Dame Diop ci micro Abdoulaye Anne. ci biir programme bi benn pilier bu ñu tuddee recrutement massif mu ne woon nañu recruter 65000 jeunes sénégalais à date fi may waxee ak yéen recruter nañ deux mille cent vingt 324 jeunes ñu signé seen contrat commencé liggéey ñu ne kon dañuy def 72 heures des pôles emplois pour faire encore de la communication au niveau des pôles mais surtout pour joxe benn li ñuy tuddee coup de poing parce que xale yi ñëw ci pôle yi biir bindu bëri nañ mais xëy na traitement yi suñ koy jàppee au jour le jour mën na yéex ñu ne ko nañ def 72 heures nga xam ni ci pôlu Pikine bi xale yi bindu woon yëpp kii pour am formation kii pour am financement kii pour am accompagnement ñu traité seen dossier su ngeen gisee xale yi nekk fii dañ leen woo individuellement en fonction li ñu bëgg def entretien ak ñoom entretien ak ñoom préciser seen projet avant ñu leen di financer donc 72 heures yi li ñu ciy def mooy bu ñetti fan yi jeexee samedi incha xale yi nga xam ni déposé woon nañ ñoom ñëpp seen demande dinañ am réponse kii ñu jox ko bon formation pour que altine mu commencé jàngi kii ñu jox ko financement pour que altine mu commencé yëngatu ci ci yëfam donc euh, loolu mun naa wax léegi ni dafa nekk suite ci gis-gis bi nga xam ni président la am ko ci xëyu ndaw ñi mais dafa nekk suite aussi ci jokkoo bi nga xam ni président defoon na ko ak ndaw Pikine yi ndaw ñi ne suñu sañoon ñu gën a renforcer li ñuy def ci xëyu ndaw ñi ak ci formation euh, banqaas bi itam dafa war a béy waaram ci euh, wàllum euh, xëyum ndaw ñi agence nationale de la maison de l'outil waaye dañoo may ay jafe-jafe ndax koppar gi ñu leen jagleel dafa néew loolu directeur général ba moom moo ko xamle te moo ne bokk na ci mu ne politique publique yi gën a am solo ngir fexe ba xeex ñàkkum xëy ci ndaw ñi moom Maodo Malick mbay bëgg ñu kàttanal agence boobu le mu yëkkati kàddu yooyu le sax ci lancement ñetti fan yu pôle emploi boobu ca Pikine dañ koy déglu moom Maodo Malick mbay mi jiite ANAMO ak Mamadou Fall ak Alioune Diagne. Sénégal joxe ANAMO euh, fanweeri junni ak ñaar ñun fexe nañu former benn ndaw jàppale ko pour mu génn mën a am liggéey ma wax ni bi ñuy ñuy dénk maison de l'outil amul woon yu état Sénégal moom ñaar moo amoon ay location la woon tey am nañu fukki maison de l'outil ak ñaar donc beneen élément bi mooy bu fekkente ni fekk nga xale ndaw bu amul xëy nga ni découragé nga ci moom bu amee am xelam rek boo ñu ko indilee au niveau de la maison de l'outil ci ñetti weer wala du ëpp juróom-benn weer dinañ ko jox mu am xëy kon li may lancé appel président de la république ci yar ci teggin di ko lancé le ministre finance finances de le ministre des di ko lancé suñu ministre de tutelle mooy jumtukaay yi war a doxal xëyu ndaw ñi ñu yëkkati ci lu am solo ci ni mu gën a gaawee jàppali ci mel anamoo fan yi yëpp dégg ngeen ay média fële ca France ak ay euh, kilifa di euh, songu Idrissa Gana Gueye ndax dañoo jàpp ni dafa àndul ak ñoom lañuy xeex muy ak ak yelleefu borom ñaari tur yi muy LGBT yi yeeg la ca topp euh, mouvement bi di ànd sàmm jikko yi moom am na ab lettre bu mu déposé tey ci ambassade bu France fii ci Ndakaaru ngir ñaxtu ci ni ñuy xool ñooñol kookee di sa Gana Gueye ñu ne ñu ngi jàppale bu baax a baax international football boobule bu fekkee dafa am lu ñuy seet ci moom moom na nekk ci liggéeyam waaye bu mu nekk ci ay gëm-gëmam Ababacar Mboub moom mooy coordonnateur bi dañ koy déglu ak Habib Faye ak Jafara Ba. waaye moom dafa mel ni dañ ko ko bañal ba noppi bëgg ko ci indil ay jafe-jafe presse bi dugg na ci mouvement LGBT yi dugg nañ ci waaye surtout nag homme politique yi France sax dugg nañ ci loolu nag moom mooy tegtale ni kon mbir mi dépassé na fa ñu ko doon euh, séentoo ak fa mu toll woon donc Idrissa Gana Gueye du moom rek a njëkk a def lii am na ñeneen ñu ko def te dara fekku leen ci lan moo tax ñu bëgg ko singale ndax li muy sénégalais la te gisee lu ñu sénégalais it kenn ndax li muy africain la ndax li muy jullit la loolu du du jàll dadul jàll moo tax xamal nañ ko kilifa gi ni ko ñoo ngi toog di déglu benn daan boo xam ne jël nañ ko teg ko ci Idrissa Gana Gueye askanu Sénégal gépp danañ jël teg ay daan France fii ci Sénégal ci mboolem luy seen intérêt danañ ko boycotté te duñ ko yemale ci Sénégal danañ ko euh, yaatal ci Afrique aussi xam ngeen ko xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Bachir Mbacké dafa fas yéene ñëw fii ci Ndakaaru 27 jàpp 29 mai mu di ñaareel ba ci ca Masalikul Jinaan mu nekk ab xew-xew bu am solo ba tax na takk der yi daanaka ñoom ñëpp génn dinañ leen génn kon ñu ci bëri ak ab plan de circulation bu bees ci li wër jumaa ja dem ba ca résidence ba xalif ba di nekk loolu bokk na ci ay dogal yu tukkee ci ab CRD bu ñu amaloon démb jagleel ko xew-xew boobu Akiou fay lañ ci déglu moom moo teewal xalif bi fii ci Ndakaaru ak Aminata Mbaari Sow ak Aliou di dal ci kër sëriñ Touba gi ci kolobaan waaye ajjuma ja ci kàttanu suñu boroom mu yendoog ñun fii ñëw julli jullik ajjuma ànd koog jullit yëpp ci réew mi ñoo ngi ci woo ñépp fu waay ne fu ne na ñëw barkeelu ci jëmmam ju tedd ji ak mbaaxaam ak tedd ngaam ji muy ci bésub ajjuma ji yeneen bés yi ci tegu yëpp it nag mu nekk kook ñun ba dimanche ba altine ci kattanu suñu borom mu doog a dellu ñu ciy profité nag ginnaaw ba ñu woowee sénégalais yëpp ndaxte sénégalais yi kat sëriñ bi ñëwam gi bokk na ci loo xam ne lii sant leen tamit ci la bokk ndax kat santoon na leen sant naa leen tamit ci turam mhm. ndax bi ñuy ubbi jumaa ji jàngu yi nga xam ne dend nañu sax muy jàngi chrétien ubbi nañu seeni bunt nit ñi dugg ca biir di julli gox goxaat yi nga xam ne ñoo wër jumaa ji muy quartier yi ko wër ku ci ne ubbi nga sa bunt hmm. teeru gan yi teral leen dimbali leen ba daanaka nañ ko bëggee woon a dunde ñu dunde kon ci seen teeyu bakkan xalif général bu Fayda Tijaniya Cheikh Mouhamadou Mahi ñas moom nag mu nga ca sudan ci benn euh, tournée euh, bu ko yabal euh, foofule ñu jàpp ni foofu ca Darfour sax ñu ngi am ay jafe-jafe ndax fitna yi dox diggante ay xeet ak mbirum gëm-gëm li ñu namm rek ci mission boobule mooy fexe ba indiwaat jàmm ak dal ci wàll woowu ndax gis ñu bëri nañu ay taalibe Maulana Cheikh al Islam Ibrahima ñas te ñu ne tournée boobu dina am ba ñaar fukki fan ak ci weeru mai bi ñu dëgmal bu kan lañ ci àndal. bu wàccee roppalaan bi foofee ca Soudan Cheikh Mouhamadou yi ñas ki ko dalal di ministre soudanais bi ñu dénk développement social. ci tukkeem gi nga xam ne dara wund ko lu dul jàmm dellusiwaat foofee ca Soudan moom xalif général Kulu Ñaseen gisee na ak jëwrin ji ñu dénk wàllu défense ca Soudan naka noonu itam ministre bi yor kàddu gouvernement gi. laata nag ci alxames gi muy gisee ak président wu transition bi di Abdel Fattah al-Burhan ñuy fàttali ne Soudan gannaaw coup bi ci octobre réew mi daanaka dara doxul ci wàllu politique naka noonu itam ci wàllu koom teg ca fitna yi di wéy di lëmbee dëkk ba ci diggante arab yi ak yenn xeet yi bu ñu sukkandikoo ci mbootaayu xeet yi maral dina yëg si foofee ca Soudan te boo moyul ñaar fukki million ci ay doomu aadama dinañ ci laal ci dimanche gi ñu génn lu ëpp téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñetti doomu aadama ñu faat leen fële ci région bu Darfour gannaaw ay song yu doxoon ci ay diggante éleveur arabe ak ay agriculteur yu bokk ci yeneen xeet Darfour di région bi nga xam ne xalif général Fayda ya nekk itam président Union islamique africaine foofee la nar a amal tournéem tournée googu sax ci samedi gi la koy tàmbali Cheikh Mouhamadou Mahi ñas fa mu nar a njëkk a dem mooy na nekk étape bi njëkk kon ci tournée boobu muy amal moom kilifa diine gi bépp localité boo xamante ne visité na ko foofu dina fa def ay ñaan ngir jàmm dellusiwaat ci foofee ca Soudan naka noonu itam gisee ak junni junni taalibe Baay Ñas yi nga xamante ne ñoo nekk foofee ca réew ma ñuy fàttali ne tournée gi ñaar fukki fan ak juróom-ñett lay jeex gannaaw bu see yàlla jërëjëf Ibrahima Kane tey seen rubrique les bonnes feuilles de la rédaction ñu leen di xamle ak euh, téere bi nga xam ne maître du Diop moom moo ko bind ndem si yàlla si la gouvernance sécuritaire construire et garantir au Sénégal la sécurité pour tous mu di euh, benn téere boo xamante ni euh, daanaka dafa méngoog sax xew-xewu jamono ndax sénégalais yi ñu ci bëri ñu ngi ñaaw lu ñàkk kaaraange biñ fi nemmeeku agression yi moom mi nekkoon maire bu Ndakaaru Diop le maire faatu ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mars atum 2018 doon jéem a xool lan moo waral euh, ñàkk kaaraange ci réew mi jëm ci indi itam ay saafara euh, ci livre boobu génn ci atum 2017 euh, Ibou Diouf di ci dellu si ak ñu téere ndem si yàlla gi tàmbali ko li ñu duppee introduction générale loolee mu xaaj ko ci ñaari pàcc bu ci nekk mu ñëwaat ci li nga xamante ne mooy kaaraange ak ni ñu mën a def ngir saytu ko bu baax a baax liñ ci jublu woon rek mooy joxe ay tegtal yoo xamante ne mënees naa may kilifa yi dogal ñu taxaw ci bu baax a baax ngir mën a aar askan bi ki fi nekkoon maire de Dakar nekkoon fi ancien ministre tamit ñëwaat na ci jafe-jafe yi nga xamante ne ñu koy faral di nemeeku moo xam ci wàllu politique ci wàllu dundinu askan bi ci lépp loo xamante ne dafa laale karaange fii ci réew mi loolu nag may na ko mu ñëwaat ci li nga xamante ne mooy faral di sooke ñaawteef yooyu ñu koy gis mu mel ni li mu doon wax démb barke démb ba léegi ñu ngi koy gis. ancien maire bu ndakaaru li mu jàpp ne bokk na ci li ko indi maanaam li nga xamante ne mooy yar bi ñu doon faral di gis ci famille yi wala sax yar bi nga xamante ne tamit lekkool bi doon na ko jox xale yi ñàkkum liggéey bi. ak lépp lu aju ci wàllu programme insertion maanaam fexe ba ndaw yi am ci lu ñu jàpp loolu tamit gis na ne bokk na ci li sooke li ni mel. fitna bi ñuy nemmeeku dafa mel ni ñi nga xamante ne ñit yu njëkk yi ñu daan dundee loolee la ñuy gis jamono ji waaye nag xëy na xeetu jëfin yi dafa am yeneen pexe yu ci lalu ba tax mu gën a metti foo mën a nekk sa xel dal nga mën a yëngu ca la nga xamante ne moom nga tànn tamit li tax ñu ne jamono ji am na solo ñu ñëwaat ci bile téere ndax dafa mel ni lu ñu koy doog a génne jamono ji ndax li waraloon kii di maître Mamadou Diop bind bile téere dafa mel ni jamono ji dafa gën a yokk bu baax a baax maanaam ñàkk kaaraange ñu koy faral di gis ci li nga xamante ne mooy réseau sociaux yi di ko dégg itam ci kër tas xibaar yi ba tax na rek ñu ne jamono ji foofu ñu taxaw ci bu baax a baax kàddu yooyu nag ki di maître Mamadou Diop woon na ci ay jamono ñëwaat rek ci ni nga xamante ne kilifa yi noonu lañ mën a taxawee ànd ak tamit askan wi bu ñu bëggee am ci ab solution. fii la ñu yem ci xibaaru timis yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg TFM léegi léegi euh, xibaar yi en français ngeen ci ak euh, Chérif Diop ñu leen di ñaanal ngeen fanaan jàmm.